jàpp ni tey du cleaning day rek la ñu war a ñëw def mais dañoo war a ñëw ku def diagnostic def observation ndax lu jiitu loolu peut-être am na loo xamante ne jot nañ ko fi def moom moo nekkoon ñëw xool li nga xam ne moom moo fi xew ndax boo toogee sa kër da ngay dégg say njaboot di la ko wax marché bi moom boo yóndee nit mu ne yi bi moom dafa salté et tout donc loolu ngay toog di ko dégg ñun ñëpp ñu toog di ko dégg ndax ñun ñëpp dañoo yori njaboot yore ay doom nga toog say doom dina naan marché ba dafa salté loolu tamit neexul ci xol te yaakaar naa li fi génn yëpp tamit tey par exemple tey sunu biir kër la jëm ñun ñoo koy utiliser donc ñu yaakaar ne balaa ñu fiy def dara tamit tey wala balaa ñuy def dinaa dañuy nettoyer mbedd bi ñu ñëw nettoyer marché bi ndax lép lu jëm sunu biir fii la jëm fii lay jógee ndax li fi génn si mbalit nii je pense que bu nekkoon am na tey suivi wala amoon na tey par exemple service de nettoiement kon duñ fi yegg si mais tey je pense que lii day firndeen rek ndax boo xoolee waa marché bi lan la ñuy wax amuñu kenn ku leen di toppal marché bi mais loolu je pense que maire dégg na ko ndax ba ñu wootantee keroog au ak le son directeur de waxtaan nañ ci ak moom nee nañ ko carrément marché bi dañoo am problème te ñun problème bi ñu am mooy du tey ndax tey mën nañ génne ñëpp ñu ñëw nettoyé ko mais problème bi mooy suivi bi te suivi boobu noonu la ñu bëggoon waxtaana ak ñoom sax parce que loolu mënuñu ko def à leur euh, absence il faut que ñoom ñu teew que loolu seen liggéey la ñoom biir liggéey nag wax yàlla comme ni ñuy wax borom ndékki moom boo ko njëkkee yeew rek foog nga tëddi jiwaat te comme tamit ñoom am nañ fii part de responsabilité ndax ressources yi fiy génn yëpp bien vrai que suñuy njaboot ñoom ñoo fiy ñëw di dugg mais ressources yi fiy génn yëpp seen commune day delluwaat ñun problème boobu la am à Boune tey dañoo nekk tey problème euh, dañoo nekk entre cinq communes Yëmbal Nord Yëmbal Sud Malika Kër Massar ak euh, Mbao donc ñooñu ñëpp tey par exemple nekk si benn portion ñoom ñëpp tey am fii luñ fi yaakaar moom mooy seen électoral donc si seen biir électoral mais buun mosu si gis boppam ndax dafa nekk benn frontière boo xamante ne ñoom ñëpp dañ ko séddoo kenn ku nekk tamit def du la neex loo xamante ne tey par exemple loolu moom mooy ñuy nekk du ñuy sonal daal. di lancer un appel au président de la république xam nañu moo ngi ciy liggéey xam nañu moom am na ci yitte ndax promettroon nañu ko fii en 2012 nee na dina def euh, Kër Massar département te buun dina doon commune loolu nag ñoo ngi ko ciy xaar ndax c'est parce que promesse la boobu ba léegi nag ñoo ngi koy xaar. jaaroon na fi encore en 2019 waxaat na ko fi dégg nañ ko nee na dina ko def bon loolu tamit may nañ ñu tamit ñu jàppale ko tamit si électoral léegi nag ñoo ngi xaar tey par exemple tey mu dimbali ñu si domaine boobu ñun ñu mën a xam fa lañ féete ngir ñu mën a am taxaw si suñu biir dëkk.